<laughs> gaa yi ñoo seetu woon seen mbokkum rakale mi <laughs> waa ngeen dëgg nag seen waajooju moom lañ njëkk a rakale <laughs> mu di leen woo da leen a yëpp coalition coalition la candidat ci la bokk de waa ngeen dëgg de parce que pousse élection ci dara lim leen mën a wax ñun ñun ñun ñun rekalé kay lay ñu def coalition lool do nga leen mëna wax ndax doon ko rekalé <laughs> waay man li ma gën ci mbir mi damaa defe ne woon waa résistance demunu waaye nek wa résistance dem na <laughs> wurna yalla PDS xamul lan mooy résistance ndegete kuy résistance du dem pale du dialogue <laughs> yéen xamoo leen résistance da koy xam-xam lu laa la wax <laughs> non vraiment vraiment rekale bi neex na quoi vraiment man man man man bi tey moo may rey quoi ki ni rekale mu fàtte na dañ koo rekkale muy woo ñi nu rekkale ngir waxtaan xam naa gars yi dañoo dem na ko hee naa ñu ne ko yow it dañ <laughs> te man ñi wuy ji rekkale bi ñoom amuñu militant le parti yëpp a <laughs>